Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf docteur Marie Xemes Ngom Ndiaye ministre de la santé njiit réew mi Macky Sall sant na ko mu taxaw nu mu gën a gaawee ci paj mi wopp ci réew mi lëkkatu jee nañu juróom benn yëf la ko ne na ko lijjanti ngir santé bi mën a dox ni mu waree ci Sénégal pil yéenekaay bi journal bi mi ngi ñuy leeralal juróom benn yooyee yan ak yan la Walf Quotidien tënkee ko ci ne xemes aux urgences Les Échos dolli ñu ci ne toogaay amatul ci ministre de la santé bu bees bi di docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye ne bi ñuy def démb ndajem conseil des ministres bi njëkk ginnaaw jëyee jëwoon ci hôpital bu Tivaouane président Macky wax na fa urgence gi am ci joyende système de santé bu Sénégal moderniser hôpital réew mi te sas taabalam fu inde bi di folote maanaam yi mu jàpp ne yooyee la ñu war a taxaw war ngir santé bi mën a tegawaat ciw yoon école de formation yi ñuy former agent de santé yi ci public bi ci privé bi journal enquête nee nañu président Macky Sall nee nañu leen audité xool leen biir biti ba xam li ñuy jàngale lu mu soleil national ni ñu loolee ci la bokk waaye du loolee rek yi mu santaane ngir ñu moderniser hôpital réew mi ak ni ñu yore hôpital Sarr ne ñoo ngi ciy dugal ay milliards te nawet bu ñëw koppar yu ñu ca def inondation yu ñu ko dënniix te du feeñ fenn suddu wax ñu nit ñoo ngi wax fukki milliards ak benn yu war a dem ci ay travaux ngir luy jàllale ndoxum taw mi ba du taa ci quartier yi nga xam ne plan d'urgence ba yeggu fa ñu yegg ci l'observateur yegg leen leneen loo xam ne yéenekaay bi nee nañu bu ñu ca yeggee jafe-jafe yu rëy la nar a jur ci réew mi xarum tabaski l'observateur nee nañu lu nar a jafe la ci tabaski gren gi ne xont bi di aliment de bétail beeg ni mu jafeek ni mu seere bu ñu moytul dina feeñ ci xar mi ba ñëpp yëg Niang expert jiiteet kuréel gii di interprofessionnel avicole du Sénégal mi ngi koy dëggal ci biir l'observateur coalition yeewi askan wi ndaje mu mi ñu bëggoon a amal suba ci àjuma ji ca place de la nation di place obélisque du am vox populi nañu préfet bu ndakaaru moo fa jaar moo leen bind ab leetar démb xamal leen ne seen manifestation bi ngeen bëgg ma autorisé ko munta nekk ndax date bi ngeen jàpp ak heure bi ngeen jàpp ak barab ba ngeen jàpp dafa am ñu leen ci jiitu fédération démocratique des écologistes du Sénégal jiitu nañ leen ci ba autorisation journal bi nañu waay yeewi askan wi ñoom it def nañu communiqué ne dégg nañu li préfet bi wax danañu ko vérifier ndax waxam joojee lu am lam déet vox nañu jàppaan nañuy beneenub date mu di le huit ngir beneenub rassemblement ca place de la nation ñoom waa yeewi askan wi ak seen yeneen natango yi ci opposition bi tribune mi ngi ñuy xamal ne seen recours ca conseil constitutionnel bu ñu ci wékkee yaakaar dóor nañu seen loxo ci ëkk ndax juróom-ñaari sage yi ci war a wax bu ñu sagee du loolu firndéri tribune nañu jaruta sori ndax ñoom ci seen jëmi bopp di juróom-ñaari sage ca conseil constitutionnel ñoo validé système parrainage yi yi te cour de e lu leer la leen ci waxoon woon leen leen ci dugg ñu dugg ci réew mi quotidien xooli yu yéeme yi xew ci réew mi seen nas ndaw su toll ci juróom fukkeet ak juróom-ñaar maanaam 57 ans yéenekaay bi nee nañu moo faatu bëccëgu ndara kàmm ci diggi mbeddi Kawlax yi naka journal bi mi ngi ñu koy leeralal ba dañu wax it ni fii ci Ndakaaru am na benn sàcc bu ñu fi jàpp dóor ko ba mu faatu léegi ko nañu jëf jooje ma nga xewee ca ginnaaw ray sud waa jii di baabu dafa àndoon ak i gaayam ñu dugg ci génn géttu xar sàcc fa am kuy rey ko ci biir gétt gi fees ko bañ ca noppee ci la ñu jàppaate meneenum xar bëggoon ko rey fees ko ngir yóbbu gaañi bett leen ñu daw am ku ñu ca jàpp yeew ko fitnaal ko dóor ko ba mu dee loolu kaa la waaye li ci libération it kaa la ca compagnie gendarmerie bu Fatick journal bi nee nañu ak lakk la fa sooke ngir mën faa amal ak càcc yëral xët mu njëkku yéenekaay bi ku ñu naan Mayib Mbow di ab MDL chef nee nañu moo ko def Linguère lañu ko affecté woon mu bàyyi ba guddi mu ñëw ci biir gendarmerie bu Fatick bi sàcc fa xaalis taal secrétariat ba effacé ay trasam ba noppi daw réer ci réew mi